allahumma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu mbokk di Mouhamed si si mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñu wërsëgal ñu fanaan ci jàmm ñu di ko ñaan yal nañu yàlla may kendaluk jàmm lépp lañ ko ñaan ci bés bi yal na ko yàlla nangu mu fulandil ñu ko lépp luñ koy ñaan ngir mu musal ñu ko yal ko yàlla musal ndax musluwaay bi du fenn du ci kenn ko du fa moom buur bi tabaraka wa taala ñu ñaan ko yal nañu yàlla may jàmm ak mboolem jullit ñi mbokk yi xam ngeen ne waxtu bi bu jotaan dinañu wittalante ki yéen ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci daara ji ci Rewmi FM 97.5 démb ñu ngi taxawoon ak yéen tegtal ba ñu yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam fam ñu joxoñal ne ñu loolu mooy la jullit bi di war a jëfandiku waruwaay ba nga xamante ne moom la ko buur yàlla tabaraka wa taala ngir mu di ko jëfandiku amaana du ñàkk ñu am ñuy laaj waaw loolu ana luy tegtal ba ana la koy firndel ana la koy saxal tegtal ba nañu dellu ci alquraan dinañ fa fekk bur yàlla tabaraka wa taala muy wax yonentu yàlla nuuh alayhi salaam mu ne ko wa qaala arkabu fiiha bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la gafurun rahim bur yàlla tabaraka wa taala dane yàlla nuuhu alayhi salaam gannaaw bu yàlla namee mbugal ba mu war a mosal waakir yenentu yàlla nuuhu alayhi salaam ca xeet bam ko yónni woon ñu lànk bañ kaa wuyu ci wéetal yàlla bam leen nekk woo waaye seytaane rafetalal waa dëkk boobee ak xeetu yonent yàlla noox seen doxalin ba buur yàlla daldi di askan woowe mu daldi leen mosal mbugal ba tukkee ko fa moom yàlla mu ne ko nag na nga yett gaal boo yettee gaal ba noppi nang ci yéeg nang ci dugg yaa képp ki la gëm waaye bu ngeen demee bay waaja war gaal gi nag ah na ngeen wax bismillah comme ñaan bi démb nañ ko tàmbalee woon da nga bismillah boo toogee ne alhamdulillah mooy la buur yàlla tegtal yonent yàlla nuuhu alayhi mu ne ko wa qaala arkabu fiiha wa qaala yàlla ne ko na ngeen yéeg gaal gi bu ngeen yéegee gaal gi na ngeen si dugg waaw na ko war dugg ci waaw bu ko defee na ngeen wax bismillah waaw ah, bismillah tàmbali nañu cituru yàlla bismillah bu gaal gi di daw di xuusi ndox wi bismillah ci turu yàlla ci turu yàlla la koy defe bismillah ci turu yàlla la ñu tàmbalee ci dugg ba ñu dugg ci gaal gi waaye bismillah mujraha ci turu yàlla la gaal gi di démarrer gaal gi mu ngi démarré ci turu yàlla waaw bismillahi mujraha gaal gaa ngi démarré ci turu yàlla ba ñu naan bismillah waaw ca lay démarré loolu mooy moteur loolu moo koy doxal wa mursaha ba léegi bismillah mooy la koy freiné waaw gaal gi buy daw turu yàlla ba di bismillah moo koy dawal buy dem bay arrêté buy freiné bismillah mooy la koy freiné bi maanaa ci turu yàlla lay dawee ci turu yàlla lay taxawe waaye li fi munti nekk daal ak li mun munti nekk ci gaal gi kawtif ba fa nekk ak commentaires yi lu ñuy bëri bëri bëri bëri na rek mooy li fi nekk mooy inna rabbi naka sama borom de la gafuurun mooy aji jéggalaa doomu aadama yi ci bàkkaar ya ñu nekkee waaye rahim mooy aji yërmande koor bu mag bi ñeel doomu aadama yi yàlla mooy buur bi jéggal bàkkaari doomu aadama yi waaye mooy ki ëmbal doomu aadama yi bu toll ni keneen kudut moom munut la ëmbal yërmande bi ni kon yërmande ba nga duggee ci sa oto yërmande bi nga dugg ci gaal yërmande bi nga dugg ci bato bi yërmande yàlla bam la ëmbal moo tax nga war a mën a dugg ci avion bi jëlee la ci béréb bu sori xuusande ki yow ci jaww bi nga xamante ne bu doon te woon du doon yërmande yàlla ana kan moo la war a mën a teg ci loole waaw ñu andil commentaire bu ndaw rek ci inna rabbi la ghafurun buur yàlla mooy kay yërëm doomu aadama yi waaye mooy kay jéggal doomu aadama yi seeni rëcc-rëcc waaw jéggalaa koor ba yàlla di jéggal doomu aadama yi mooy jamono bi nga fàttee wala jamono bi nga nekke di bakku waruwaay woowu seytaane fàtte loola sant bi nga war a sant yàlla ci xéewal bala yàlla xéewalal bi nga am waruwaay wi moo xam avion nga war moo xam bato nga war moo xam oto moo xam biis moo xam particulier ndegem seytaane këf na sa xel bem la naaguloo ne waruwaay bi daal mooy li fi nekk yàlla ne bàkkaar boobu ngay faggul sa bopp ku la koy jéggal ku dut man akañ yow yàlla yow dong yaa ñu koy jéggal waaw loolu nga war bu dee loolu nekku fi nga war a jóge ko fan ko waree nga war a jëm fa ngay jëm waruwaay boobu nekk fi bu fekkente ne woon léegi dañu war a xuusandi ak suñu bopp yu ndaw yi jóge ko Europe wala jóge ko Asie ñu war a ñëw Afrique ñu war ko traverse si géej gi ndaw fay bu metti waaw kañ waaw ci yërëmande yàlla yërëmande yàlla ju bari bu mu ammal doomu aadama yërmande yàlla ba yàlla yërëm doomu aadama bi moo jox la xam-xam buy defar kargo ay bato yay yëpp ay conteneur yay yëpp ay magasin yoo xamante ne nuroo nañu kër bateau yooyu di xuusandi jëlee la fu sore andi la fi nga bëgg a jëm tolof tolof ya ngay daj ci biir géej gi bu duwutoon yërmande yàlla ana kan moo lay xettali kenn kon bu dee yàlla moo ne may aji jéggalaa ci ñàkk sant bi ngeen may sant ci sama xéwal ya ma leen defal waaye may buur ba leen ëmbal yërmande bu toll ni keneen ku dut man amul kenn ku leen ëmbal yërmande bu toll ni ñu war koo mën a gëm bu dee léegi avion amul ñu war a jógee ko États-Unis war a ñëw di ko Afrique bi fii ñu war koo traverser si jaww ji ah oxygène bi ma ne di du jeex de waaye coono buñ fay am du du du nuroog noflaay ba ñuy am ci boo duggee ci avion bi am na avion yoo xamante ne waaw la anglais yi di tuddee night flight waaw volu guddi nga xamante ne da tiim dëkk bi nga gis muy rafet ah lumière yi làmp yi di nes nesi waaw nga xam ne yaa ngi ci beneen monde allahu akbar léegi-léegi ñu àndil la ah, guti ay deux heures du nga di ko jëfandikoo mu wóor na fi ma nekk nii mag ci kaw jaww ji ma ngi ne nemm ci jaww ji bu du wutoon yërmande ba yàlla wax ne inna rabbi la gafurun rahim ana moo lay yaatalal ana moo la war a mën a ëmbal yërmande bu toll ni avion bi di war a wàcc seddaay jamono bi climat bi sedd mu xaw nugg ah ñu annonce ne léegi tey dans quelques minutes avion bi dina àgg terre avion bi dina wàcc kon na ngeen waajal seen ceinture yi comme nuñ koy waxee soxna Mari ah loolu ku duuti yàlla ki xamal doomu aadama melokaan bi ni mel bu duutoon du yàlla moo ñu man yërmande bu toll ni anakan moo ñu koy ëmbal xam naa ne moom du doon suñu suñu noon bu mag bi du seytaane moom léegi-léegi sax nga wàcc ci yenn vole yi nga gis gaay di tàccu allahu akbar gaay di waaw di tàccul capitaine bi walla commandant bi naan ko yow a ah, war ko du moom ndeysaan du moom du moom wallahi du moom ki mu doon hmm, kooku mooy yàlla waaw kon yàlla dong fi nekk waaw léegi-léegi commandant bi day dem sax ba xaw a saalit waaye buur yàlla moo ko ci génne allahu akbar moo tax mu ne inna rabbi naka sama borom de ah moo tax yonent yi ñoo ñu gën a xam seen borom ka ñun yonent yàlla yi ñoo ñu gën a xam yàlla ko ñeneen ñu dut ñoom moo tax gaalu nuux bi keroog ba ko yàlla ne war wa qaala arkabu fiiha yàlla ne wax naa nuux nangeen dugg war gaal gi waaye nag na ngeen wax bismillahi mujuraha ci turu yàlla la gaal gi di dawee wa mursaha ci turu yàlla la gaal gi di taxawee li fi nekk mooy inna rabbi naka sama borom la gafuurun aji jéggalaa koor la képp ku salfaañe weddi xéewal yam la xéewalal nga war koo sant yàlla dina la ko jéggal waaye rahim ku ëmbal doomu aadama yërmande bu fees delle la keneen kudut buur yàlla amuloo lii manoo ko sañoo ko xamoo ko sax waaw keñ kon képp koo xamante ne war nga war waru waay na nga bàyyi xel yàlla waaw na nga bàyyi xel yàlla yàlla mi la tàggatal oto bi yàlla waay boo duggee ci oto bi na nga laal waaw na laal bandu alquran waaw alquran di jébbi ci sa biir oto rawatina waxtu wii mbooleem particulier yay yay xëy mbooleem transport commun yay xëy ngalla waaye ah déglu journal baax na lool xam la xew ci réew mi xam la xew ci dikk bi waaye tamit ah bu leen fàtte waaw bu leen fàtte bu leen fàttee tooyal xol yi ci la nga xamante ne mooy lay dundal xol waaw yaram bi la koy dundal xam nañ ko de mooy affaire u jaxateku ndaay ak affaire u saaneku ndaay waaw loolu moom xam nañ ko lay dundal yaram moom moom ndawal ak euh, ceeb ak euh, lépp luy dugub waaye luy dundal xol mooy la tax xol bi di fàttaliku boromam calla wa loolu mooy lay dundal xol ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bokk na ci lam ñu fàttale ko mooy xéewalu yàlla ba toll ni euh, julli fajar bi nga xamante ne moom lañ doon def ci ginnaaw tuuti képp koo xamante ne teewee nga julli fajar ci jàkka ji am na malaaka yalay seede fa yàlla buur bi tabaraka wa su ko defee ñu bokk bàyyi xel julli waxtu woowu ko defee mu doon loo xamante ne du ñakk mu doon loo xamante ne a ëllëg bu ñu malaayka yi seedee fa yàlla buur bi tabaraka wa dina doon la nga xamante ne mooy lañuy ñuy njëriñ tax na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne ci maana xadis ci xadisu xuzayfata bul yamaani radiallahu an nee anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal wallazi nafsi bi yadihi la taamurunna bilmaaruf wala tanhawna an ilmunkar aw la yushikanna allahu an yabcata alaykum iqaaban minhu thumma tadcuunahu fala yastajibu lakum xadisun xasanun axrajahu albani fi saxix tirmisi mbokk yi saxaabi wi di xudayfata bul yamaan radiyallahu an nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ne ñu gëñ naa ci ki yore sama bakkan waaw nee na la ta'muruna bil ma'ruf in fokk ngeen nekk di digle lu baax wala tanxawna anil munkar in fokk ngeen nekk ñey lu ñaaw waaw ñaari conditions yi in fokk ngeen nekkee ko saa yu ngeen ko bàyyee saa yu ngeen ko faalewul saa yu ngeen ko nekkewul rekk ah ragal naa aw la yushikanna allahu an yabata aleykum iqaaban minhu waaw ah, ragal naa yàlla mosal leen ñamal leen mu yónnee leen mbugal woo xamante ne sa moom yàlla lay bàyyee ko su ko defee ngeen nekk ci tolof tolof ci ay benke ñenke yoo xamante ne da ngeen dem ba seen xool soppeeku ngeen te ñoo ñaan yàlla mu teggil ñu lañu ñu nekkee ni su ko defee bu ngeen di tàllal seeni loxo ngeen di ko ñaan du leen wuyu ca la ngeen koy ñaan du leen faale ndax day fekk mu jëppi leen la waral mooy dangeen nekk di xool ñaawteef yi muy naxsaay yu baax yi nekku leen di digli lu baax nekku leen fi di tere lu ñaaw waaw nekku leen fi di digli lu baax nekku leen di tere ñaaw moo tax yàlla ñamal leen mbugal bam leen yónni te ngeen nekk di ko ñaan ngir mu teggil leen ko yàlla bañ kaa teggi ndax day fekk jippi na leen moo tax mu ne walladi nafsi bi yadihi gëñ naa ka yore sama bu mu bakkan la ta'murunna bil ma'ruf da ngeen nekk fi di digle lu baax wala tanhawna anil munkar walla ngeen nekk fii di tereelu ñaaw bu ngeen ko deful awla la si allaha an yabaata aleykum iqaaban minhu wala yàlla yónni leen mbugal ba jóge ko fa moom mu doon la leen di toroxal tumma tad'uunahu gannaaw si ngeen di ñaan yàlla fala yastujibu lakum fekk yàlla jéppi na leen ba tax na du leen faale du leen wuyu ci la nga xamante ne mooy la ngeen koy ñaan ngir mu teggil leen ko moo tax bu ñu demee xool la xamante ne mooy mbaaxu yàlla bi léegi ci doomu aadama bi rawatina yow julit bi ci xadiisu abi umaamata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qiyaami lleyl fa innahu da'bu saalihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa magfiratun lissayi'aati wa minhahatun anil ism rawahu tirmisi wa xasanahu albani abi umamata albahali radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaaxaate dafa santaane daa joxoñ ne aleykum ñeel na leen aleykum na ngeen sàlloo aleykum na ngeen taqoo aleykum war na leen lan bi qiyaamil leyl jóg bu ñu jóg guddi nag waxuñ kuy round bagage yi jàmbur waxuñu kuy jóg guddi di def la wuuteeg la yonent bi digle waxuñu kooku de yonent bi aleykum bil qiyaamil leyl war na leen ngeen di taxawal guddi bi ngeen di ko naafila di ko julli waaw mel ni ñàkkul mu am ci laaj yonent bi moo lu tax sallallahu alayhi wa sallam ne ñu fa innahu daabu saalihin qablakum loolu mooy waruwaayu ñu baax fi jiitu woon ñu baax ña fi jiitu woon loolu mooy sekere ñu baax ña fi jiitu woon te loolu alquran saxal na ko yàlla buur bi tabaraka wa taala ne yenentu bi ne inna nachiati leyli hiya ashaddu wat an wa aqwamu kiila waaw jëfandikoo jaamu yàlla ci guddi moo gën a te moo gën a bëri puissance fa yàlla xataa yenn société yi ba ñoo xoolee ñañuy liggéeyloo guddi ak bëccëg ñañuy liggéeyloo guddi ñooy ëpp sareer ndax liggéey guddi da di risque da loo xamante ne képp ku xam dajo ba fa nekk ñaari sacrifice ngay def da ngay sacrifier sa nelaw danga koy jaay waaw da ngay sacrifier sa nelaw ak sa waxtu waxtu ba nit ñi di nekk di nelaw yow yaa ngi liggéey su ko defee loolu mooy euh, bonus bi nga xamante ne moo fa nekk moo tax buur yàlla tabaaraka wa taala ne yonent bi ne jaamu yàlla déyanteeg sa borom ci guddi moo gën a ëpp bënus te moo gën a ëpp puissance ndax feew fu ngistal mënu faa xaj day fekk nit yaa ngi nelaw yow yaa ngi déyanteeg sa borom yaa ngi discuter ak sa borom moo tax yonent bi ne aleykum war na leen bi qiyaamin leeli jóg guddi di naafila di ñaan yalla di toroxlu sa kanam fa yàlla fa innahu ndax li fi nekk loolu de daabu saalihiina qablakum mooy jikko mooy melokaan mooy sekere ñu baax ñi fi jiitu woon wa qurbatun ila rahman mooy lay jegeloo julit bi fa boromam day tax nga gën a jege sa borom wa magfiratu li sayyi'aat mooy lay tax nga effacer day tax a effacer ñaawteef yi wa min haatu anil ism te mooy lalay tii mooy ngalaab bi nga xamante ne moo lay bañ a tabiloo ci lu ñaaw bu dee lu ñaaw la moo lay tax a bañ a xool lu ñaaw bu dee lu ñaaw jëf la moo lay tax a bañ a jëfloo lu ñaaw bu dee jëmukaay la mooy téye sa tànk bi doo fa dem maanaam naa fi yu guddi bonus ya fa nekk benn mooy sekkere nit ñu baax ñi waaw mooy sekkere ñu baax ñu fi jiitu woon waaye dalay tax a jegeloo sa borom te képp kuy jege sa borom tàqale ko nga lépp lu ñaaw wala lépp lu bon waaw te tamit day tax lépp lu nga defoon ci lu ñaaw wala lu safaanook mbaax ñu effacer la ko waaye da di boo xamante ne moo lay téye ba doo mun a babbeeku seytaane du la munal la nga xamante ne mooy la lay ci lu ko neex moom seytaane xataa bu la ko defee ah boo gisee ne ah lii mooy lama nekkee di def su ko defee dinga nga tuub moo tax buur yàlla ne ci alquran mu ne ñu innal xasanaati na sayiaati dalika dikra lizakirin nee na innal xasanaat xamal ne jëf yu baax yi yu yiw yi yu laab yi yu set yi yu sell ñi yu rafet yi nga xamante ne doomu aadama bi mun na ci tànn ba ka neex wala ba ka yemb mu jëfe ko yàlla nee yu rafet yi yu jekk yi yuzhibna sayyi'aat day doon vagg bay ñëw ramasser lépp lu ñaaw waaw yàlla ne zaalika loolu ma leen joxoñal nii zikra fatteli di fàtteli li zaakiriin képp ku xelam mu di ko fàtteliku la yàlla digle yonent bi santaane ko innal xasanaat yu rafet yi waaw juli ñaari rakk ci kanam tuuti bu jant bi fenkee nga julli salaatu duha nga jàng sa fukki aaya alquran wala fukki saar donte min suratul fiil ila suratu naas nga jàng fukki saar yooyu wala ñaar fukki saar la ko tàmbalee wa tiini wa zeytuuni ba keroog ngay àgg kul audu bi rabbi naas mu doon ñaar fukki saar la nga mun ci alquran fekk yaa ngi koy jàng loolu dafa bokk innal ko defee julli yoor yoor moo xam juróom benn rakka moo xam juróom ñetti rakka moo am fukki rakka ak ñaar ah yooyu yëpp dafa bokk innal xasanaati yuzhibna yu baax yi yu rafet yi yu jekk yi day effacer day gome yu ñaaw ya nga defoon waaw woor wooru naafila ayyaamul biid waaw quinze ah treize quatorze quinze di ko tamit yëpp waaw chaque jeudi chaque lundi ah yooyu di ko woor waaw yooyu yëpp da di da di da di da di xasanaat yuzhibna sayyi'aat wa yut'imuna hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura loolu yëpp dafa bokk innal xasanaat yu baax yi yu rafet yi yuzhibna sayyi'aat day gome yu ñaaw yi togg sa ñam ñam bi nga gën a sopp yekkal ci sa dëkkandoor sa mbokk walla miskin ba nekk ci koñ bi walla faqiir ba nekk ci koñ bi wala doxandéem bi nga xamante ne ah xamut mënul ah, loof na tumaranke na nga taxawee ko taxawaay bu mucc ayib te boo koy def tamit nang ci séentu peyooru yàlla yooyu yëpp da di innal xasanaat yu zihibna sayiaat yu rafet yi yu baax yi yu jekk yi yàlla nee na day gome lépp lu ñaaw lépp lu baaxul la nga def yow doomu aadama su ko defee loolu mooy la yàlla joxoñ mu ne li ma leen wax nii ne innal xasanaati yu baax yi yu zihibna dinañu gome dinañu dina dinañu épargne dajale sayyiaati yu ñaaw yi sànni ko ci powel bi yàlla nee na zaalika euh, tegtal ba nii zaalika li ma joxoñal nii zikra da di ci kan kookoo jaralaaj laaj zaalika li ma leen wax nii ne innal xasanaati yu rafet yi yuzhibna sayiaati dañuy effacer dañuy gome yu ñaaw yi zaalika loolu ma wax nii zikra da di fàttali ana kan moo war a mën a bénéficier wu ci fàttaliku bi mooy li zaakiriin ki jël xelam ak xolam ak xëtëram mu di ko fàttaliku mbiru yàlla moo tax yàlla ne ci suratul ala fa zakkir del fàttali yow yenent bi fa zakkir del fàttali yow imam bi yow boroom xam-xam bi yow ustaas bi yow mi yàlla yenkeewal nga am la nga xamante ne mooy astuud ci mbindum ndeyjoor ba nga xamante ne mooy mbindum alquran del fàttali yonent bi ne fal yuballigu minkum shaahidul ghaib waaw ka teew ci bërëb bi ka yàlla xamal astuud ci mbiru diine naka yeggee na ko partager ci ki nga xamante ne xamu ko kon yàlla ne yow borom xam-xam ba ma yenkeewal xam-xamu islaam fa dakkir del fàttali ndax in nafaati dikra fàttali dafa am njariñ bu kenn du mën a lim waaye nag bénéfice bi mooy sa yadakkaru man yaxsha dina fàttaleku ku takkook ragal yàlla képp kuy suuraale mbiru yàlla ci say mbir kooku la fàttali bay tukki ci njàngale yenentu bi ak tegtal ba buur yàlla tabaraka wa taala ak tegtal ci alquran fàttali kooku lay njëriñ waaw waaye nag ku repp ku nar texe di kooku mooy ku koy sore moo tax mu ne ñu woyete jannabuhal asqa alladi yasala naaral kubra yàlla ñu yàlla musal ci kooku waaw melokaan bu njëkk ba yàlla ne fàttali bay jógee ko ci alquran ak njàngale yenentu bi ak aqwalul ulama as salihin waxu boroom xam-xam yu baax ñi yàlla ne kay bénéficié wu ci fàttali boobu mooy ku suuraale yàlla mooy képp ku téye ca rajo nga dégg ñu naan qaala qaala rasul nga taataan si boo téye sa télécommande waaw nga taal sa tele nga gis ñu naan qaala allahu qaala rasul bul zappe taxawal déglul amaana nga for fa loo xamante ne xamoo ko amaana nga xamee fa loo xamante ne xamoo ko te mu ci sa biir mémoire bopp nga nar kaa laajte amuloo kenn koo la koo koy laaj seytaane occupé loo la ba danga kay mujjee négligé nga ne ah comme awma ku ma koy laaj jarul léegi naa ko defee comme ni ma ko xalaatee fala seytaane di ñëw rafetal la jëf ba nga nekkee moo tax buur yàlla ne na ngeen moytu seytaane day taaralal nit ki sa jëf fa zuyyina lahum sheytaanu amalahum waaw foofu la yàlla di joxe avertissement doomu aadama muytu leen seytaane day dikk di leen rafetalal seen jëf bi ngeen di jëf nga ne non loolu dara nekku ci lu mel nii wéet ak koo xamante ne armal la ci yow waaw joxe loxo koo xamante ne islaam dane bu ko jox loxo te ñun fii nii dañoo jaawaale joxe loxo ak nuyo nuyo gémmiñ la joxe loxo ñaari tënk yuy dajaloo am na ci kum kumu dagan ci yow am na ci kum xaraam ci yow ndax bunt bu muy ubbeeku bunt ba muy tijji mooy bunt bu garaaw kon su ko defee ñu ne loolu yëpp danga ko war a moytu kon yow mi déglu waxtaanu fajar fii ci réew Rewmi FM 97.5 na nga jël innal xasanaat jëf yu baax yi yuzhibna sayyi'aati dañuy gome yu ñaaw yi yàlla ne zaalika tegtal ba ma leen tegtal nii zikra mooy fàttali mooy avertir li nga xamante ne yàlla nee na maa ngi koy avertir ci képp koo xamante ne li zaakiriin kuy jël xelam ak xolam di ko fàttaliku lépp lu yàlla santaane yonent bi jagleel ko salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi jacalana allahu wa iyaakum min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha aw mawlaaha allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih allahuma aimmatana wulaata umurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alcadiim wa nafani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun astaghfirullaha al azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu